asalaamaaleykum man la Diaw dina Amadou Baxaw Diaw di kilifa aada ki waalo e, nekk Samboor bëgg lépp la nga xam ni caado wolof la doon waxtaan ak yenn nag ci benn mbir ki benn wax mu di senegal yu bare booleen leen laajee ak ñenn ñu bare neenu sëñ Touba yennu yàlla taasu ci leeram taasuñu ci barkeem ñu bare neenu Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke ci boppam ay cosaanam boo ko seexi teetee pël la man na ci sama xam-xam ma bëggoon tontu ñooñu ne leen ah man de ci sama yaakaar ak xam-xam wolof la ma teg ko ci lii mooy que wolof yi seen bopp seen aada yaa ngay bokk ci seen askan ñi ngi lay natt ci seen askan ci sa néegu ndey ci sa tiim la ko séeréer di wooyee wolof di ko wax miin wala di ko xeet wolof yi dangay ngay dégg ñun la Lat Joor Ngoone Latiir géej ba wolof ci boppam pour mu identifier la dalay lay ki sa néegu ndey Cheikh Amadou Bamba mbàkk nag moom ci boppam dafa am néeg bu mu bokkoon ci biir Kajoor ak biir Bawal ak biir Jolof mu nekk néeg bu rëy néeg boobu nan la tuddee mooy néegu gonjoox néegu gonjoox boobu nag boo xoolee sëñ bu mag bi ñan la ko bokkal ca ngay xam ni kon mooy mbokk réew yëpp sëñ bu mag moo bokk ak néeg gànke la mu du xuréeje nga xam ne mook Lat Joor a bokk benn baay doomu baayu Lat Joor ak sëñ bi ñu koy wax gànke la mu du xuréeje ñoo bokk benn néeg sëñ bi ci boppam moog medun saa xewar bu jur baayu Lat Joor medun saa xewar bu jur baayu Lat Joor ak néeg ak sëñ bi ñoo bokk benn néeg ñu ko néegu gonjox Alburi Njaay buur ba Jolof jabaram bu doon wax Gañsiri Jóob mu am ci Siidi Gañsiri Siidi boobu moog sëñ bu mag bi ñoo bokk benn néeg ah yow nag sa néegu ndey ci biir Kajoor ak Jolof kenn ki sa néegu ndey Alburi denc ko kenn ki sa néegu ndey doon wujjeeg yaayu Lat Joor kenn ki sa néegu ndey medun saa xewar ku jur bàyyi Lat Joor bokk ci kon nag yaa nga ke digg buuru kajoor ya yaa ngi ci digg damel yaa ngi ci digg biir jolof kon nag yow sa néeg mu nga digg kajoor ak bawol kon foofu nga bokk ndax néegu ndey dafa am solo ndax tey ji boo nee ma sëñ Mountakha Mbacké man wolof bi ba dee da nga koy jaarale ci arabisant day wax sëñ Moustapha Mbacké Mountakha Mbacké ibnu Bachir ibnu Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké mais man dama lay wax ne sëñ Mountakha Mbacké wëgëj ba ndax sëñ Muntaxa Mbàkke néegu wëgëj la bokk ma ni la sëñ Saaliwu Mbàkke awil ba ndax néegu awil la bokk ma ni la sëñ Abdul Ahad Mbàkke awil ba néegu awil la bokk nga ni moom sëñ Mamadou Moustapha Mbacke man la sëñ Mamadou Moustapha Mbacke seey ba sëñ Moustapha Mbacke moog Alburi Jaay Buurba Jolof nga bokk néeg donc ngeen man xam ni ci wolof ci néeg ngay bokk ngeen ñu ni ma ah wante bakke ba ngay dégg bi bala woon man leen déedéet Mbacke bi du baax ndax santu Mbacke sant la bu yàgg ci biir Tekruur nee nunu askan bu ñuy wax jawwogoo yi ñoo njëkk ñëw ci Tekruur te Mbàkke ci la bokkoon jaw bokk ca ndaw bokk ca lëkkoor bokk ca màngaan bokk ca ay sant ya nga xam ne yu tumu la ñu ngi woon biir Fuuta ba leen pël yi génnee foofu ca la ñoo sant yooyu wàcc ñëw Jolof ak Saalum ba léegi sant yooyu da nga fekk ay lëkkoor fleur màngaan sewaan sant yooyu ñu ngi diggante Mbàkke ñu ngi diggante kon Jolof ñu ngi diggante Ñaani ñu ngi diggante Fuuta ñu ngi diggante Saalum donc sant wolof bu yàgg la sant wolof boobu nag ci boppam baa koy natt sax nga seet kan mooy kalam buuru nambandiiru ba nga xam ne moo mujj ci buuru nambandiiru ñu koy wax jarmeew buuru nambandiiru bu mujj bi ñu koy wax waali ndaw yaayam mberu Mbàkke la tudde Waali Ndaw mill 1457 la ko cukli jiglaan rey moo doon buuru Namaniru Namaniru mooy betu ñaani mi ngi tuddoon Waali Ndaw ndeyam tudde mberu mbakke kon mberu mbakke yàgg na Waali mberu Mbàkke Ndaw te ngeen xool ni kal bi ndaw foo ko gis rek kalam mooy Mbàkke or kal foo ko gis mooy que ñaari famille yu dëkkaale woon te yàgg donc ndaw ak Mbàkke duñu yàgg beneen bi itam nga xool ci aada wolof ngay gis ni góor bu nekk sa état civil du nuy jox la tur dàkkante la sa waajur bu jigéen ngeen seet ni waajuram bu góor Momar Anta Sali la waajuram bu jigéen nu ko dàkkantel maamam Balla Aysa Buri waajuram bu jigéen la maamam du Aram maa Aram Mbàkke maa Aram Ñang lu ko dàkkantal loolu day wane ni système matrilinéaire wolof yi nga xam ne néegu ndey nu ma amoon doole ci wolof yi tukulóor amu ko bu doon tukulóor la du ñuy wax rek Cheikh du Bamba Momar Momar Ball Ball maa maram mais duñ ci def turu jigéen yi ndax ñoom du ñuy fab rek tur yi di ci tegle góor donc aada wolof la nekkoon ma war nag ni mi ngi gane àddina ci biir dëkk wolof yi bu mu ganee àddina ci dëkk wolof yi comme aada wolof yi lu ñuy def mooy que boo ganee àddina war jàngal xuraan du lay yóbbu ci sa néegu ndey nijaayu yaayam sëriñ Mbàkke Buso ca Jolof nijaayu yaayam nga xam ne ñoo bokk néegu gonjox foofu lu ko yóbbu mu jàngi baayam jàngalu ko ba nijaayu yaayam génne àddina ñu yóbbu ko ci nijaayam lenqe moom du buso nga xam ni ne marabu guerrier la woon ñu yóbbu ko mu jàng fi donc njàngam fondamental yu njëkk yi néegu ndeyam nu ko jàngale comme nu aada wolof def aada wolof sa nijaay moo lay jàngale ak néegu ndey donc topp na boobu mu màgg ci dëkk la fi njàngam yëpp mi ngi ko def ci diggante kajoor diggante jolof diggante njàmbur génnul dëkk wolof yi ci njàngam bu mu paree njàng tam war a denc ay soxna dafa dem seeti ay nawleem ñi nga xam ni ñooy doomi soxna yu mag yi mooy famille Lo Ndaam famille Silla famille Jaxate ñooñu ay nekkoon ay sëriñu wolof yu yàgg mu dem dugg fa kon mu ngi ci biir wolof yi ba léegi activité am yu mu def yëpp ak taalibeem yu mu njëkk am yëpp ak fu mu sanki ay daaraam yëpp ci biir wolof yi la donc gisuloo ci lenn la nga xam ni pël la wala tukulër la kon nag man ma ni sëñ Touba gonjoox ba wolof la gonjoox la mooy mbokk Sidi Gañsiri gonjoox la mooy mbokk Madun Saaxewar gonjoox la mooy mbokk Gànkel Amadou Xureej ndax ñun wolof yi ci néegu ndey lu ñuy xam booñ euh, ndax ki nag sëñ Mountakha Mbacké mii nga xam ni guddi yi ngi toll moo moo nekk ci jal bi moom wërëj la comme bërgéej ku li kodd ngay daw bàyyi Saaxewar Fatma ak xalif bii ñoo bokk néegu ndey kon ngeen xool ni wolof yi seen bopp ba léegi xam nañu ci yenn néeg lu ñu bokk ci néegi nag lu ñuy xam fa nga bokke kajoor bu njëkk juróom-ñaari néeg yi boo ci bokkulee doo falu mu ne néegu géej néegu waagaadu néegu soño néegu doroobe néegu béy néegu gelluwaat donc ci néeg yi lu la daan fale néegu ndey moo la daan jox pal jox la baat jox la daraja jox la maqaama ci réew mi donc ñun wala fi du ñuy wax sant dëkkul fenn ci sa néegu ndey lu ñuy xam foo bokke far nag sant ba ci boppam mu di mbakke ak buso buso tam du gollare buso ci boppam ma nga ci biir golof sant bu yàgg la nekk biir golof Mbàkke sant bu yàgg la nekk biir Jolof dañuy nekk nag biir Jolof nekk Fuuta aussi donc du rek Bousso am na ay ay rek ne ay la jóge déedéet ñi ngi woon biir Jolof Bousso Mbàkke Ñang Aafe Kamara Si ñooñu ñoo Silla ñooñu ñoo doon sëriñu Jolof ak jéey ñooñu sëriñu Jolof yu yàgg lu nekkoon foofu kon nag loolu laa amoon di doon wax ah di wax sama xalaat rek ni leen man de sama yaakaar ci wàllu waa waajuram bu góor ak ci wàllu waa waajuram bu jigéen sëriñ bu mag bi ci boppam wolof la woon ci fu mu ganee àddina fu mu màgge fu mu yaroo fu mu fu ko xamee lépp ci biir dëkk wolof yi la hmm?